nekk syndicat mu amoon yooyu na nañ ko defar ci la joxee ndigal na nañ ko defar ñu defaraat projet bi comme nañ defaree woon marché janatul maxwa bi ñëw tegal ko ko mu changé turu ngiraa nen bi tuddee ko soxna Asta Walu Mbakke mi jur maam bu Buso mu jur Seexul Xadim Saamul Bamba yàlla def na biñ koy préparé mu joxe terrain bu toll ni six hectares fii marché central bi nekk abattoir bi ne nañ ko di defar ñu defar ko defar fa barabu suturukaay yóbbu fa ndox ak courant mu door a joxe ndigal na nañ fa doxu yàlla dogal nag liggéey boobu béréb bi béréb bu doon taala bañ fay toxu bi ñu commencé yàlla ak rek dogal bi yegg si eh, bi ñu demee ci sëñ Cheikh Mbacke mi nga xamee ne tey mooy sëriñ Saliou mu ne nañ jël lépp jëbal ko Alaaji Baara ndax moo fi sëñ Touba tey moo fi sëñ Saliou ñu jël ko dem jox ko Alaaji Baara te Mouhamad Lamine Baara daal joxe ndigal ne nañ ko liggéey ñu commencé ko ba mu toll ci picc ñëw na fii ànd ak Cheikh Bat Abdou Khader ak Cheikh Moustapha jullee na timis ci saal bii daal di ne sëñ Bas mu ne ko Mbàkke mu ne ko nag ma seetal nu sëñ Saliou doon doxee te man sa jàllale ma wax ba ñu doxee ko ndax ñun ñun ci Touba commencé wuñ liggéey bu toll nii. ñu ngi coow suñuy liggéey waaye ñun commencé wuñ projet bu toll ni yàlla dogal eh alhamdulilah ñu continuer ko moom it sama jëlee ko fi ci diggante boobu nag bi di Sidi Muxtaar ñëwee yàlla def ah aw yoon dugg ci yoon wi moo doon président Wade dafa amoon programme pour defar marchand ambulant yi ci la ñëwee woon fii ci doon seet. ndax xam nañ ne defar marchand ambulant fii ci Touba dina décorser Dakar ak marché yu bari ndax ñu bari tey ñu nekk Dakar ak na bu ñu leen seetee ci tund Touba ak li ko wër ci lañ bokk te koo ne kaay ma jëlee la Dakar yóbbu la Touba danaan waaw ndax gannaaw Touba gannaaw Dakar Touba kon ci la ñu ñëwee woon ci loolu ñu dugg ci ci programme bi ñu duggee nag ci buntu monsieur le maire ak responsable lu marché yi wër Touba yépp nag ñu ñëw ba inscrire ci saal bii lu toll ci juróom-ñaari junne ak juróom-ñaar téeméer yu teg ci ay doomu adama juróom-ñaari junne sept mille sept cent et quelques personnes dañu inscrire fii yàlla def nag bi dara desut lu ouverture campagne bi jot jafe-jafe am ndax administrateur bi nekkoon ci diggante bi doxalu doon li war xale yi Touba yi mer ne dañuy takk brassard ouverture campagne bi président Wade du ko fi def ñu jéngu ca loola président Wade di yëg ko woo sëñ Bass Abdou Khadir wooma ma ne ko man nag si si mal placé parce que promoteur la mu ne man àndal ak Cheikh Ibrahima moom sëñ Bass ma ànd ak Cheikh Ibrahima Mbacke mu laaj ma programme ma wax ko ko mu ne ma mosuma yëg loolu ma dindi liste bi jox ko dindi itam demande audience bi nga xam ne moom la xale mu ne ma bul fanaan Touba bul fanaan Dakar ñu ñëw Touba waxtaan ak sëñ Bass ci suba teel mu tàkk seen baara yabal ko fii tey booba moom la moom lañ sa seeni Moxtaar jox luy programme mu matt yi mu ñëw fii dajale fi xale yi bi mu dajalee xale yi wax ak ba pare ñu ne ko takk brassard gi naroon pour saboter meeting bi ñu ko def waaye duñu wate ñu bàyyi ca lool premier tour bi jàll diggante premier tour ak deuxième tour sëñ Bass woo ma na ma ndax man nga gis Macky booba Macky lañ koy woy mu ne ko waaw mun naa ko gis de mu ne ma kon dem leen ngeen gis ko wax ko programme mu xale yi ndax engouement bu toll ni xale yi am ëpp nañu perte te gannaaw ne nañ duñu woteelu booba wàdd bu ñu demul droite nañ dem gauche ma ànd ak Thiaw Kandji architecte bii ak Cheikh Sakho men ñu dem président Macky tey recevoir ñu ci Mermoz ñu wax ko ko mu xool plan bi ne ma soo demee waxal ma xale yi ne ko nañ ma jàppale su ma gañee dinaa ko liggéey ma ñëw informé sëñ Ba mu ne ma kon nañ dajale xale yi ñu dajale xale yi yépp yëkkati luñ leen mën a def le ay déplacement ak ay communication ñu def ko communiqué deuxième tour bi ñu wateel bi tawal ma kii la yàlla def alhamdulilahi rabbil alamin ma ci gañe waaye nag booba ba léegi dogalu yàlla ba moo jotaguloon amoon na yéene bi am ci xalaat ba màggalu daaw jéeg sëñ Basu woo ma woo ko fàttaliwaat ko engagement bu mu jëloon mu ne daf ko fàttoo daal de ne ges Aly ne ko demal ma ca bureau ba nga xool ma xoolal ma ko ñu jël engagement pour yeggale ko Aly Ngouille Ndiaye ñëw fii def tour bi ci cérémonie officielle bi Aly Ngouille Ndiaye yëkkati kàddum ne insha allah état bi dana eggali marché bi ndax nag ñoom ñoo ñu taxoon a taxaw ndax bu ñu bàyyi woon ak waa kër sëñ Touba na sëñ Saliou defoon ba mat janaat ba mu yegg daañ koy yeggale te bu ñu yeggalee bu boobaa kër sëñ Touba danañu fay ndax ba yeggale marché bële la desoon ca marché ba bi ko commerçant yi jarul sëñ Saliou moo génne ca alalu boppam muy sept cent cinquante millions de francs CFA mu fay ko ci soixante douze heures en xaalis liquide door a commencé nag marché bii door a commencé marché bii sept cent cinquante millions la génne xaalis liquide ci soixante douze dafa joxe li tey na bu subaa ngeen ñëw ñu jël ci des ñu ñëw bu fay ñu commencé ci marché bi waaye comme nag état dugg na ci dugal ci loxoom laa tax mu taxaw